bu baax di leen seedaloo nit ki maa ngi sant sama borom Mawlana tabaraka wa taala nee na it mi ngi leen di seedaloo yéen ñëpp ni ñu ngi sant boromam Mawlana tabaraka wa taala te cant googu ñun ñëpp la war tey ne sant boobu la mu sant suñu borom ñun ñëpp la wax
yi ñu ko war a sant bari na lool ndax tey yi ñu ko war a santee nee na bari na lool
waaye gëje mbir ci place ba mu ko doon defe waaye ne gëje mbir ca place ba nga ko doon defe
ba at ma dellu si ba ak ma dellu si ca weer wa mu ko defe woon ca weer wa nga ko defee woon ca guddi wa mu ko defe ca woon guddi ga nga ko defee woon ca place ba nga ko ca defe woon place ba nga ko defee woon yàlla rek ko mën yàlla rek ko mën
loolu nag képp ku la ko defal nee na loolu nag képp ku la ko defal war nga ko sant war nga koo sant cant goo xam ne ne cant goo xam ne lu tax sax nga mën a jot la mu la defal du tax sax nga mën a jot la mu la defal waaye dana ci xam ne li mu la defal yëpp nga ko waaye nag dana ca xamee ni li mu la defal yëpp te loolu it mën na tax mu dolli la tey loolu mën naa tax mu dolli la ndax suñu borom wax na mu ne nee ndaxte sunu borom wax nanu ni la in shakartum la azidannakum su ngeen sant su ngeen santee ma dolli leen nee su ngeen santee ma dolli leen
kon nag yal nañ yàlla dimbale
kon nag nee na yàlla na yàlla dimbali
gis loolu li nga xam ne dana danañu koy defal ci xéewal gis loolu li nga xam ne lii daanu ko defal kii xéewal may ñu kattan ak xol yu sell yu ñu ko mën a sante kattan ak xol yu sell yu ñu mën a sant ci daraja yonent bi ci dara sallallahu alayhi yonent wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañ fi yàlla yàgg dajale nee na yàlla na fi yàlla yàgg dajale place bi dajale boo xam ne bii dana tëdd ci kaw sunna dajale boo xam ne bii nag dana tëdd ci kaw sunna
ànd ak sell ànd ak sell te it mu ànd ak xabool gu bàyyi ko ci yàlla te ànd ak xabool bu bàyyi koo ca yàlla yal nañ ko yàlla defal defal leen ko yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla defal defal leen feneen fu waay nekk di fa jëf lu mel nii it yal na la yàlla defal loolu nee na keneen fa waay nekk di fa jëf lu mel nii yàlla la yàlla defal loolu ñu ko yéene bëgg ko te amuñu kàttan gi it yal na leen ko yàlla ne defal ko yéene bëgg ko te amuñu kàttan ngay yàlla na leen ko yàlla defal ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam
ndax ci ñëw na euh, ku- mbay ko ndax ñëw na ah mbay ka ndax ñëw na ak Aliou Cissé ak Alaji Aliou ak Alaji Birama ak Alaaji Aliou ak Alaaji Birama Jéeng ndax ñëw nañu mbaykat. mbaykat ñu laaj mbaykat ndax ñëw nañu mbaykat ñëw bu ñuy wax mbaykat ak Alaaji Aliou Cissé ak Alaaji Birama Jéeng.
ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ah yéen ñëpp nag sëñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp.
ci ñu ngi coon leen di sant bu baax yéen ñëpp ci coono yi.
ak ndimbal yi nee na ñu ngi leen di sant ci coono yi ak ndimbal yi.
ak taxawaay yi ak taxawaay yi.
di ñaan yàlla mi mën a fay mu fayal ñu leen nee mi ngi ñaan yàlla mi mën a fay yàlla fayee nu leen te lépp lu mu leen mën a fay yal na leen ci boole suturas adduna ak laaxira te lépp lu mu leen mën a fayee yal na leen te booleel suñu rës àdduna ak su àllaxira ak wér ak gudd fan ak kattan gu ànd ak jaamu yàlla ak wér ak gudd fan ak kàttan gu ànd ak jaamu yàlla
boole leen ci wërsëg wu lewet te lew boole leen te wërsëg wu lewet te yaat te lew ak li nga xam ne moo gën a jafe ak li nga xam ne lii nag moo gën a jafe muy mujj gu rafet mooy mujj gu rafet yal nañ ko yàlla yàlla may na ko yàlla boole na te jaraj yonent bi sallallahu dara ñu alayhi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu fi des li ñu fi desal di ko dund yal nañ dund ci li neex yàlla yàlla li ñu si defee di ko dund yàlla na ko dund ci lu neex yàlla bés ba ñuy nar a dajeeg moom it yal nañu fekk ñu ànd ak ngërëmam ak kontaanteem li nar a dajeet moom it yàlla fekk mu ànd ak ngërëmam ak kontaanteem ak kontaanteem bi jaahi bi jaay rasulillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam ak suñu barke sëriñ ak sunu barke sëriñ ak i sëriñam ak i sëriñam ba tey ñu ngi leen di dollee ñaan ba tey nee na ñu ngi leen di doolee ñaan ñu di yeesal suñuy pas-pas ci lépp lu ñu jóg jëm ñuy yeesal suñuy pas-pas ci lépp lu mu jóg jëm te di ca sàmmoon teeg ndigalu yàlla te di ca sàmmoonte ndigali yàlla di ca wattoon teeg ay tereem di ca wattoonte ak tereem loolu moo di la nga xam ne moo am njëriñ loolu mooy la nga xam ne lii moo am njëriñ yonent bi sallallahu alayhi nee wa na sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na wax na ni wattaqu llaha fi ma taatuuna wa ma tadaruuna na ngeen ragal yàlla ne yonent bi nee na na ngeen ragal yàlla ci lépp loo xam ne da ngeen ko dikke ci lépp loo xam ne ni da ngeen ko dikke ak loo xam ne da ngeen ko bàyyi ak loo xam ne da ngeen ko bàyyi na ngeen ca jox yàlla la mu moom na ngeen te jox yàlla la mu moom loolu mooy lan loolu ne mooy la loo jëlati jëm ci jëf loo jëlee ci jëm ci ci jëf na yàlla tax na yàlla tax lépp looy bàyyee lépp looy bàyyi na yàlla na tax yàlla tax jàng ngeen ko ci lax bari yu nee na loolu jàngeen ko ci Laxdari yi War- ñu ngi jot a jàng ñu ne war na ci mukallaf ñu ni war na ci mukallaf muy bëgg ngir yàlla muy bëgg ngir yàlla di bañit ngir nee na yàlla di bañit ngir yàlla ci léppam nag ci lépp yal nañ ci yàlla kattanal yàlla ci yàlla kàttanal kàttanal leen xam naa jafe na nee na xam ne lu jafe la waaye nag yàlla mën na ko yombal bu mu yomb waaye nag yàlla mën na ko yombal moom yomb ndax yëfama ndax yëfama te lu mu bëgg mu looy am te te lu mu bëgg loolay am kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla na ñu defal loolu kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla yombalal ci defal mu loolu jafewu ko mais moom jafewu ko te itam suñu jëf yi la te it suñu jëf yi de ak yëngu yi ñu yëngu ak yëngu yu ñu yëngu yàlla na ko yàlla teg ci jëfi mag ña yàlla na ko yàlla teg ci jëfi mag ña ndegam dara manqué na ci ndagam dara manqué na ci ci mbaaxam ci mbaaxam ak rus gëmu rus mag ña ak rus doomu rus mag ña ak bëgg gëmu mu leen ak bëgg bëgg gëmu leen bëgg ak ñoom it doyloo ko ñu doyloo ak yàlla ñoom it doyloo dañu doyloo yàlla ak gënal gëmu leen gënal lépp ak gënal gëmu leen gënal lépp yàlla na yàlla yéegal suñuy jëf yàlla na yàlla yéegal suñuy jëm ci seeni jëf te seeni jëf yéegal suñuy yéene yéegal it suñuy yéene ci seeni te yéene seeni yéene ci mbaaxam ci mbaaxam ak yërmandeem ak yërmande ak ngëneelam ak nga nee la bi jaahi billaahi rasulillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam léegi nag léegi nag ñu ngi bëgg a jëm ci li nga xam ne moo ñu tax a bàyyi suñuy aju yépp ñëw fi ñu ngi bëgg a jëm ci li nga xam ne nii moo ñu tax a bàyyi suñu aajo yi ñëw xam na amuñu jéego yu te ñu xam na ni amul jéego yu ñu jote mag ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam te rawoon ñu ba noppi yu ñu jote mag nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam sa rawoon benn waaye kon it ñu jéem a tegu ci yoon wi waaye nag kon it ñu jéem a tegu rek ci yoon doonte le dañuy watatu it doon jëlee dañuy wax fii ndax waxtu wu ñu àggee ndax waxtu wu ñu àggee suñu toogee ba ca kanam it suñu toogee ba ca kanam suñu walbatikoo suñu wëlbati ko yem ci ñun yem ci ñun wala ñu gàttanuñu wala ñu gàttal ñu fekk ñu ci kaw yoon wi fekk lu ci kaw yoon yal nañ ko yàlla yàlla defal na ko yàlla defal place boo xam ne nee na place boo xam ne Sayyidi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu Seydi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu ci ragal yàlla la teregal yàlla ga ak mbaax ga ak mbaax ga ak sell ga ak sell ga ak wattandiku ga ak wattandiku ga ak xam-xamu ak xam-xamu bu leer ba nga xam ne ca yàlla la bari te yàlla la bàyyi ko ndax xam-xamam ndax xam-xamam ilmu laduni la woon nee na ilmu laduni la woon
bu wér a wér bu wér
mu jóge fi mu jóge fi place bii place bi Sidi Aboubacar daan fi toog Seydi Aboubacar daan fi toog te tabaarakallah tabaarakallaahu ba yàlla indi luy ba tey yàlla indi lii tey ci seen barke ci seen barke yàlla nañu yàlla dimbale ba nee na yàlla nu yàlla dimbali ba suñu leen mënul a jotit suñu leen loolu la jot lu ñu fi wax lu ñu fi wax mu sell mu sell suñu bañ ci wut dara te ñu bañ ci wut dara lu dul lu yàlla dul yàlla yéen ñiy déglu yéen ñuy déglu yéen yàlla na leen yàlla defal yàlla lool leen yàlla defal ci loolu dara jéemam ci ci dara ñun ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam yàlla nañ fi sippee te bañ fi sëfee yàlla nañu fi sibbee te bañ fee sëf waxuma suuf leneen suuf ay yiw kat nee waxul sa fiiw kat maanaam ñëw fi ñëw fi
di fi fo di fi fo di fi doxal di leneen fi doxal leneen lu dul loo xam ni mooy yelloo mbir bi lu dul loo xam ne moo yelloo ñeent defe ne sa bakkaar yëpp sippiku na fi defe ni sa bàkkaar yëpp surtout ku ne fi te teqaloo cee ko te dara teqali ko woccee dara jële at fi beneen jëlee sëfi ko ak si leneen yal nañ ci yàlla yàlla na ci musal yàlla musal bi joxi rasulillah Bismillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam
téere bi de nee na téere bii rek Seydi El Hadj Malick Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu
wax na ñu ne nee wax nañu ni
ni mu koy liggéey bi mu koy liggéey masul teqalikoog di gis rasulullah mosul jeexale ko gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te mu am wax na ne nee wax na ni ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla mil mi ya nii mi la fu mu fanaan fu mu fanaan te ñu fanaanal ko fa mu yàlla dañu fanaanal ko fa mu yàlla su bu yeboo borom xam ne yonent bi fanaan ñu na ko moom borom xam ni moom yëpp yàlla Muhammad fanaan na ko fële dëkkal ga mu fanaan
te loolu sikk waru ci tey doon nag benn si waru ci am
liggéey gi mu ko liggéey nee la géej gi mu ko liggéey benn bayt bu nekk benn bayt bu nekk soo ko seetee ci téere yi nga xam ne wesoor la soo ko seetee ci téere yi nga xam ne yi weseer lañu ay paasi paas la ay paas yi paas lay doon te xeeti xam-xam yépp la ca te boy xeeti xam-xam yépp la boole ci bayt bi te it ni mu def yonent bi nee ni mu def yonent bi ni baykat bu mag di def mbay ni baykat bu mag di def mbay noonu la def loolu sallallahu la alayhi def wa sallam sallallahu alayhi wa sallam baykat bu mag nee baykat bu mag su cooroonee du cooroonee day wuti àll day wuti àll toj ko toj àll ba gor ko góor àll ba ba mu set moom wet sa lépp
mu lakk ko nee lépp mu lakk ko lépp lokkat ko ba mu set lokkat ko ba mu set lakk lépp lakk lépp
toog ba bët set toog ba bët set bi mu wut jiw wu rafet jiw bu rafet bu sell bu sell yóbbu ko xolli ko xolli bu sell xolli ko xolli bu sell tànn ko ba mu rafet tànn ko ba mu rafet mu denc ko fu ñu wóolu mu denc ko ci place bu ñu wóolu puudare ko ba benn sax du ko mu lekk jor ko ba benn sax ak gunóor du ca dugg pare pare larme tam préparé ay larmetam wala machine yu wala jiwkaayam machine jiw kaayam ak fas yu am kattan ak fas yu am kattan ak way ommat yu sawar ak way amat yu saxal ak ñu mën a bës ak machine ñu mën a bës machine suñ dajeeg bàq bu suñu neex dajeeg bàq bu tooy te duñu am pakk te duñu am pag sol guuf du fatt seen loolu guuf boobu du fatt seen machine
yoon yi jub lool loolu ya jub lool
topp ko ba mu sotti topp ko ba mu sotti mu raada ko muraadu ko ba mu sell ba mu sell buub ko buub ko ba du amum ñax ba du amum ñax suñ bayaat ba su dikkee bayaat dikkee bayaat ba jot bayaat ba jot mu bayaat ko mu bayaat ko bàyyi ba ballar ñu bàyyi jot ba balar ñu jot mu ballar mu ñu balar ñu ko bàyyi ba nabat jot bàyyi ba nabat jot mu nabat mu nabat ko toog bu déqi toog jot ba deqi jot mu déqi mu ko deqi ko fëgg ko fopp ko tar ko tar ko ba mu fenni ba mu fendi mu mu naaf mu ko naaf ko wàcc ko ba nga xam ne taret bi jóg na wàcc ko ba teret bi jóg ba dox ay ba fan dox ay fan mu bàcc mu ko bàcc ko ci bàcc yoo xam ci ne bàccu yoo xam ne yi gerte ga du toj gerte ga du toj ba mu sotti ba mu sotti mu jëri ko mu jëli ko jëri mu rafet jëriñ wu rafet bant du ca nekk bant du ca nekk dara du ca dara nekk du ca nekk sol ko ci sol saako ko ci saaku yoo xam ne yoo xam ne yi yu bees yu fekk la bees peq la teg ko ci teg ko baskil ci baskil boo xam ne boo xam ni ka cay jënd ka cay jënd ragal na diggante ak ragal na boromam digganteem ak boromam ba du wàññi ba du wàññi waaw kenn waaw kenn ñu jaay ko ñu jaay ko mu fayu mu fayu yóbbu ca këram yóbbu ca këram noonu la góor gi def loolu la góor gi def sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam ci jéeri ndax ndax daf ko dale ca leer ga daf koo dale ca leer
di dox ak moom di dox ak moom
ba bi mu soobee yàlla ba bi mu soobee yàlla fi mu ko jaarale fi yëpp mu ko jaarale yépp ba indi ko ci ndiggal maam ba Adama indi ko ci ndiggal maam Adama mu di fa nekk mu di fa nekk di fa nekk di fa nekk ba la xew-xew bala xew-xew mu ëjjale ko mu ci jële ko ca teg ko teg ko ci jéem ci jéem jële ko ci jële ko ci jëfa jële ko ci jëba jële ko ci jëfa def ko ci baaraamu sabbaalu kaayam ba ba- baaraamu sabbaalu kaayam ba bi mu neexee ba suñu ñu ko borom neexee suñu borom mu bàyyi ko ci aadama bàyyi koo ci aadama ñëw ci siifa ñëw ci siisa di topp di topp di topp di ko topp ba daanu si ci abdul ba daanu muttalib ci abdullahi ci abdul ci abdul muttalib muttalib jóge ca jóge ca daanu ci daanu ci abdullahi abdullahi jóge jóge ci ci abdullahi abdullahi xaraf xaras ci sittuna amina sittuna amina mu di ko fa mu garde di ko fa garde di ko fa di ko garde fa garde ba mu ba génn mu génn di di muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam
góor gi bàyyiwu ko merci di xaaji may bàyyiwu ko wax kañ la ndeyam dee wax na kañ la ndeyam dee ak baay ba kañ la dee baayam wax na kañ la dee ak ba baayam di ak dee ba baayam di dee booba fu yonent bi boobu nekk fu yonent bi nekk ak bi aminatu di dee ak aminatu yi dee booba yonent bi na mu day boobu yonent bi na mu day ak yar bi nga ak- xam ne Aba Talib yar na ak ko yar gi nga xam ni yar gi nga xam ni duñ Aba Fall yar na ko di ko di ko toppatoo toppatoo gannaaw yarug Abdul Muttalib gannaaw yaru Abdul Muttalib di dem ak moom di dem ak moom wax li mu mag wax li mu mag ak li mu daan jëf ci ak bi muy li mu gone daan jëf ci bu muy ah, gone gone ak màggam ak màggam na mu daan def na mu daan def ak ñaata weer la am ak ñaata weer la am mën a raam mën a raam ñaata weer la am ñaata weer la am mën a jóg mën a jóg jafandu ci miir jàppandu ci miir miir ñaata weer la am ñaata weer la am di dox di dox doxinu koo xam joxe ne ni koo xam ni fonkal fonkal mu la am laf bu la am laf la te am kattan jaam kattan di ko di yóbbu ko yóbbu ba ba wax wax
mën a jam gi ko yàlla mayoon mën a jàng gi ko yàlla mayoon tudd ñi mu te nampaaleel ñu mu nampaaleel ak ñi cay ak jullit ñu ciy jullit ak ñi cay jullit ñu ciy jullit ak ñi ko doon ak nampal ña ko doon nàmpal di ko di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu ba bi mu jote yàlla yónni ko mu jotee yàlla yónni ko ak yi mu ak yi dajeel mu dajeel ak tiis yi mu ak daj ci si mu dajeel ak jabaram ak ci jabaram ak ñu doon ak taaraya ña doon taaraya ak ñuy doom yu ak ñuy jigéen doom yu jigéen ñi ak ñu góor ak ñi ñu góor ñi li mu am ci li mu jaasi am ci jaasi jaasi li mu am ciy fet li mu am ci fet li mu am ciy mbubb li mu am ci mbubb jaaro ba jaaro ba ak na mu ko daan ak na mu takkee ko daan takkee ak na mu ko ak daan na mu wëlbatee ko daan wëlbatee ak peñe ya ak peñe ya ak ña ko bëkk néeg ya ak bëkk néeg ya ak ña ko doon ak noddal ña ko doon noddal ak ña nga xam ak ne ña nga xam ni ñoo doon ñoo attekatam doon attekatam ak ñi mu dénkoon ak ñi mu marché dénkoon marché ya ak ña ko daan ak noddal ña ko daan noddal ak ñi nga xam ne ak ña nga xam ni ñoo doon bàyyi ñoo yàlla doon mbaa yàlla am di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba feebar tabbi ba ci feebar tabbi ko mu topp ko mu topp ko di ko topp di ko topp ba wax ba wax la mu am ca te feebar mu ba am ca feebar ba ak ñaata ak fan la ñaata fan la di ko topp di ko topp ba bi mu génnee ba bi mu àdduna génnee àdduna ña ña ko doon sang ko doon sang ak ña ko doon ak ña ko taxawu doon taxaw wuute ga ca amoon mu tega ca am ña doon sotti ndox ña ma doon sotti ndox ma ña doon rag ña doon rag ña doon ña doon wëlbati wëlbati ña gas ña bàmmeel doon ba gas bàmmeel càngaay ya càng càngaay ak ndox ma ndox ma fuñ ko fu roote ñu ko roote ak ak ndax saxaaba ya ndax saxaaba ya ñeent ñooñu la ñeent ñooñu la ñëpp nga fa woon ñëpp nga fa woon ak ku fàddu ak woon koo fàtt ku ak- fàttu woon ak lu doon ak seen lu melo doon sabab ba lu lu doon seen melo ak lu doon seen melo ak ku ca nag ak ku ca nekk bi ko yonent bi génne bi àdduna yonent bi génnee àdduna te tiit jàpp te la ci jàpp la lan nga doon jëfe lan nga doon jëfe ak ñeleen ci ak ñeleen- këleen këleen ci ak nga jële leen ci jële di ko topp di ko topp ba ñu dugal ko ba ci ñu dugal bàmbeel ko ca bàmmeel ba ak yemu ca wax ak yow yëpp ci wax yëpp ba bi mu dajeeg ba borom bi mu dajeeg borom yooyu yëpp yooyu la yëpp Seydil Hadj Seydi Malick Hadj Malick bàyyi wax bàyyi bàyyi- bàyyi wax na lépp lépp wax na lépp ci biir téere bi mim yi
kon nag muy mi kon nag ne mim ya
mbir mu rëy la mbir mu rëy la
dooy na yóbbul waa ji tukki ju nekk doy na yóbbalu aji tukki yu nekk
doy na muslaayu lépp lu nit ragal doy na muslaay lépp lu nit ragal waaye yëpp nag waaye yëpp nag mi ngi aju ci pas mi pas ngi aju ci pas-pas ak gëm gi ak gëm
su la Hajj Malick juree su la Hadj Malick juree te téere bi te téere bi gëmuloo ko gëmuloo ko gëmuloo luñ ci wax gëmuloo liñ ci wax kon it kon it du la du la jëriñ jëriñ dara
Eh, léegi nag ñu ngi ci bëgg a jëm léegi nag ñu ci bëgg a jëm Eh, ñu tàmbali si ñu tàmbali ci tuuti
Cheikh su ngeen yeboo tàmbali si bopp su ngeen way waye ci bopp ba ca kanam ñu dem ci mawlid bi man tey jóge dama xaw ci fii la
دمح من القلم حسنا وإنه إذا رأت الله أبنا أبنا من نوره نورا نهدي العالمين وصل يا إلهي وجزينا خيرا أن محمد رسول مغدر بالخيرام المرء عليما لها وسبيلا إن العالم لها وسبيلا أسيئة قلت من أفضل النظم وذليا يا إلهي واجني الأبدا أنا وأولنا مرضى بالخدم وعلم الله هدينا نبوته وكان عدم بين النقص والندم وذلي يا إلهي واجزي أهلا أن محمدا
téere bi wax ci sulëf ñu ubbi ko bismillahi irrahmani irrahim ndax sallallahu alayhi wa sallama wax ne mbépp mbir moo xam ne nii ñu ngi ca yaakaar barke te jiite lu ñu ca bismillahi irrahmani irrahimi yàlla du ca def barke bismillahi irrahmani irrahim lamb na ci ngëneel loo xam ne lii lu rëy la kenn xamu ko lu dul ki nga xam ne kii moo ko wàcce muy mawlana tabaraka wa taala sayiduna ali ibnu abi talibin radiallahu taala anhu li nga xam ne yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam magam ja wax na ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha yonent bi ne man muhammad maay njëndil xam-xam sama rakk ju baax ji aliyun mooy buntu ba loolu rek doy na tegtal ci ne seydina aliyun la mu ko yàlla jox ci xam-xam yaana moom moomu de nag wax na ne law shi'tu la awqartu sab'ina ba'iran min tafsiri fatihati lkitaabi su fekkoon ne man aliyun neexoon na ma danaa sëf ci firim bismillahi irrahmani irrahimi juróom ñaar fukki géléemi madd te du tax tafsiru bismillahi rahmani rahim man ko jeexal bismillahi rahmani rahim bokk na ci ngëneelam rek ñu tudd ci ñaar yoo xam ne yi dana tax nit ñi war ko fonk te jàpp ko bu baax a baax am na benn waay boo xam ne dafa mas a dox ba yem ci këyit këyit ga ñu bind ca bismillahi irrahmani irrahim mu sëgg for ko ngir màggal tur wa ca nekk ca la ko sama borom jéggale ba dugal ko ajjan am na benn waay boo xam ne dafa kàccooroon lool yàlla atte mu am soxna soo xam ne si soxna sa moom yàlla daf ko baaxal am na ci salaaxiyatu loo xam ne lii yàlla mi ko jox rek ko ko xam di def nag lu muy def rek ne bismillahi rahmaani rahim jëkkër ji nag nekkoon di kàccoor lool mere ko ca bismillahi rahmaani rahim yi ji mu daan wax ne ndaw si la day dana fexe ba lii muy dox di wax ak di ko soowul dana ko bay am lëf lu mu ko dénk ndaw sa fab lëf la takk ko ci morso tëj ko ci waxandem waaja nag yëg ne loolu le ndaw saa ko denc ca biir waxande wa mu dem tijji waxande wa sàcc pas-pas ba ak la mu ca façonte moo ko moom dem yóbbu ko ci beneen place dencal ko fa boppam toog mu moom diir mu ne ndaw sa ana sama dénkaane ba mu ne ko ma nga ca waxande wa waajo ne teqet ree ca gannaaw ba ndaw sa dëddee mu ne ko joxuma ko ndaw sa dem fab doom ba yëkkati bay dugal ca kànnaar ba ne bismillahi rahmaani rahim teg rek kànnaar ba fettax ubbiku mu teet seet morso ba fekk ko fu mu ko defoon ak la mu ca takkoon dara jógu ci mu yëkkati ko jox jox jabar jëkkër ja mu ne ko waaw yow kii foo ko jële mu ne ko ci wax nii mu ne ko waxuloo dëgg ndax man bi ma ko fay maa ngi ko sànni ca géej gi ndax ga laa ko sànni na nga def na nga def ba jot ci mu ne ko man de bi may tijji wax ne bismillahi turu mag bi rek laa wax bi ma ubbi it fa laa ko fekk mu ne ko kon yow yaa nekk ci dëgg man maa dib saay saay fekk si naa la tey tuub na dootuma defub caay caay
وفاز من مات مع توحيدي ومن دعا بذي اليقين بدفن ما ظهر من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فقل دعاء وجل غريبا نسألك السبيل بالخلاهي وصبر وإسالة البلاهي بمصطفى بكل الخلق فبالإله منطقي بالحق أدعو لله والمبادئ وأعد الكل للمال
ñeenti dex yi nga xam ne sama borom tabaraka wa taala tudd na leen ci alquran ci suratul qital yooyu yëpp mi ngi bàyyi ko ci xarafi bismillahi irrahmani irrahim nee na dexum ndox ga mi ngi bàyyi ko ci miimu bismillahi irrahmani irrahim nee na dexu soow ga mi ngi bàyyi ko ci haulahi dexum ñoll ma mi ngi bàyyi ko ci miimu rahmaani dexum lem nga mi ngi bàyyi ko ci miimu rahimi sama borom wax na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa muhammad man zakarani bi hadihi alasmaai min ummati bi qalbin xaalisin min riyaain wa qaala bismillahi arrahmani arrahim saqaytuhu min hadihi alanhaar mu ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama soppe bi maa ngi lay géñal ci sama màgg nga ak sama tedd nga ne tur woowu la képp koo xam ne ki tudd nga ko te mooy baatu bismillahi rahmaani rahim ci xol boo xam ne dara ci ngistal nekku ca ànd ak ak sell nga tudd bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay yëgal ne ëllëg danaa la nandal ci sama ñeenti dex yi la yal nañ ci yàlla boole bismillahi rahmaani rahim nga ne lem yaana amoon nas ndaw soo xam ne dañ ko mayen ci kenn ci nitu yàlla yi mu mage lool ndaw sa nag bëggul lu dul góor gi dee ndax mu sëy feneen ndax bëggu ko muy def nag waxtu woo xamee ne préparel na góor gi lu ñu war a naan fab tooke def ca biir góor gi ne secc weer ma ne cocc rek su ko toggalee ñam def ca tooke góor gi ne fuuf ñam wane cocc ndaw sa nekk ci wow melo ba góor gi xam ne kii su ko fi téyit lor la koy indi ndax bëggatu ko te li mu koy defit du ko wàññi dara mu ne kon nag naa ko jéem a bàyyi rek mu wuti feneen fu mu séyee ba mu ko bàyyee nag ndaw sa ne ko moo góor gi yow de man jaaxal nga ma lépp lu ma la mas a jox ci lu dee fi naan def na ci poison lépp lu ma la mas a jox ci loo xam ne def na ko lekk def na ci poison dama bëgg nag nga wax ma lu la musal mu ne ko baat bi bismillahi rahmaani rahim loo ma mas a jox ba nga xamee ne sama xol ràgg na ci su dem ndox ma jiital bismillahi rahmaani rahim su fekkee ne ñam la it ma jiital ci bismillahi rahmaani rahim loolu ma musal waaye demal rek wuti keneen te bàyyi ma li ci dikk bari na lool góor gi nag ne alhamdu lillahi zil ijaadi walqidami mumiddina bi wujudi lbadri zil qadami ne alhamdu mbooleem xaaji cant yi ñeent hamdu qadimin li qadimin xamdu qadimin li xaadifin xamdu xaadifin li qadimin wa xamdu xaadifin li xaadifin góor gi ne ñeenti ndombay ngëneel yooyu yëpp sama borom tabaraka wa taala ko jagoo cant gi nga xam ne sama borom tabaraka wa taala moo ko sant boppam bi nga xamee ne def na li mu def ba noppi ci kattanam te kenn dimbalewu ci dimbalewu ko te moo def lépp seet na boppam sant boppam ñu ne sant gi mooy lan ñu ne dafa wax ne alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda wa jacala alzulumati wannuura ak cant yi ko niru alhamdulillahi fatire alhamdulillahi alladi lahu ma fi samawati ak yooyu le am ñu wax itam ne dafa ne laysa ka mislihi shay'un alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillahi aji saxla ñeel farija alladi farija nga xam ne xalaqa bind na asamawaati asamaan yi juróom-ñaar ak li ñu ëmb wal arba ak suuf yi juróom-ñaar ak li ñu ëmb ak li nekk ci seen diggante te kenn fekk ko ci wa jaala zulumaati wan nuura góor gi nag nee na xam juróom ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom cant googu de yàllaa ko sant boppam kon yàllaa ko moom ak cant gi nga xam ne yàlla ci boppam moo ko santub jaamam ni ki ni'mal abdu innahu awwaab ak innahu min ibadina salihin cant la goo xam ne gii dafa bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne qadim la tàmbalewul fenn yemul fenn jëm ci koo xam ne kii dafa sosu te lépp luy sosu da ngay jeex yàlla nag moom sosuwul tàmbalewul fenn yemul fenn keneen ku dul yàlla nag am nga foo tàmbalee am nga foo yem